Sarr euh, ma jigéen ñu ñëw kon ci Aïssata Tall Sall mi nga xam ni euh, lépp lu jëm ci troisième mandat bi nga xam ne wax nañ ko nee na ko xool ci affaire juridique wala bu ñu ko xool ci mbiru politique nañ ko xool ci mathématique neen daal faaw ñu mathématique affaire yi bu ko defee xam bu baax a baax ndax président Sall diggante 7 ak 5 kana alaaji sooy la moom xamoon naa ne ak bëri ba kii moom xanaa Sonatel numéro bi la 69 contrôlé wuñ ko non non du 69 ah. 69 bi boo ko décroché décroché wu si ba. heureusement bi nga coupé micro bi sax moom la. ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla di dellu di dellu di wax ni. <laughs> di wax ni ñu ngi sant borom bi si subhaanahu wa taala ndax de. décroché wëyu ba woowaat nañu. waa alaaji kii duñ ko seet bii wëyu nañ ko yóbbu. ci yoon alaaji ndaw si duñ ko ah, seet. boo ko boo ko boo demee kii ko ñoom. non dañ koy seeti alaaji nañ ko seeti. son ci yoon lañ ko yóbbu. Ah. kii wëyu bii. bàyyi ko dafa defe ni kenn mënu koo localiser bu dee fanweeri numéro la yor su ma paree woo soo paree moom incha allah nañ ko càmbar ba xam kii kan la xam identité bi kan la mhm. non ay numéro yu bari la yor dafa ah, numéro dafa bëri numéro moom xam naa dëkk bu ne am na fay numéro dafa kenn mënu koo kalkal filtre bloqué naa numéro yu bari man nag xam nga lu tax du ma gaaw a jot waaw man numéro bii muy wootee numéro bu ma enregistré du ma ko jël ah. fii muy wootee nii ku ma mm. enregistré sa tur du ma la voilà moo tax man xam naa sonal nañu duñ dégg sonal nañu fii la fi def sonal kaatim siisa ba moo ko yore. ba <laughs> jigéen. Hmm. bala ñoo dem Touba kon. ndax suñu yaay Aïssata Tall Sall da ngay d'accord ak moom ci mbiru troisième mandat bi daal ñu jëlee ko ci affaire juridique. Mm. jëlee ko ci affaire politique. Mm. daal ñëw ci wàllu mathématique faaw ñu mathématique affaire mm. xam ne nag est-ce plus 5 ànd na non. 5 plus 5 defe naa moo ànd. 5 mm-hmm. plus 7 moo ànd 8 plus 8 moo ànd. Mm-hmm. noo gisee suñu yaay ji euh, Aïssata Tall Sall li wax. waaw sooy boo xamale moo tax ànduma moom. parce euh, moom. bu njëkk ba loolu la doon xeex mm. donc su fekkee li Youssou Ndour di way naan euh, say waxu démb ak say waxu tey ñu wuutee rek mm. pour ñu wóolooti la day day doon problème parce que mm. man mënuma di xeex dara nit ki woo la taf la ci wetam jël la jox la postu nga nekk ca di gérer nga bëgg a waat li nga doon xeex démb tey jii nii nga bëgg ñëw di wax ne ah, bu ñu xool se parce que premier euh, mandat bi nekkul woon quinquennat wakk sept ans la kon dañ ko ci éliminer bëgg a jël loo xamante ne nii fa dëgg yàlla yow yaa taxaw sénégalais yi ñëpp toog di la dégg nga ne man fa séenéewu ma def euh, troisième mandat avant ngay yéeg moom kooku noonu ñuy xeexle di wax moom taxaw na fii li tax ñu fal ko bokk na ci li euh, Maître Wade bëggoon bëgg a def troisième mandat nga xeex ko ba yëg ba noppi léegi nag non seulement moom waxatul mais ñi nga xamante ne ñooy ay ñooñam dégg nañ fii ministre de la mhm. justice ba muy maître Malick Sall nee na bu mhm. même bu présenté wul sax dañuy tordre la amee Macky Sall pour mu dem présenté wu xam nga yooyu wax boo taxawee di ko wax mhm. te yow euh, dañ la xamoon bi ngay ñëw di jël nguur gi yow nga xeex loolu kon donc yow say objectif ak sa ngëm-ngëm bi nga doon woote sax gëmuloo ko ñoom gëmuñu li ñuy wax ñu baal ma si si kàddu yi nag voilà alaaji ñoom de li ñuy wax naan wañ loxo président ñemewu ñemewuñ ko bay wañ loxoom xanaa président jox leen loxoom ne leen wañal leen mu ko. ah kay sañ nañ ko. dañ ñaan ko président parti nga président réew nga waaye nag parti bi yaa ko jiite. déggoo li ma la wax ñooñu amut ku ci ñemee taxaw ne da ngay wañ loxoom xanaa président tàll leen loxoom ne wañ leen wañ wañ leen ma. Hmm. jox leen digal ngir ñu soog koo wañ. ñoom ñii nag eh, dafa am wax boo xam ne gars yi ñu ngi koy wax. képp kuy wax waxu troisième mandat. Hmm. ba lenn xew fi ci réew mi. Hmm. bu ñu jël responsabilité bi rek. Mm-hmm. ñu yemale ko ci président. waaye képp ku cautionné loolu. Mm-hmm. kay ñëw ëllëg. nañu la acté acté boo xam ni dañuy wane ni yow haute trahison nga def loolu mooy li nga xam ne mooy li yi war a dëggal nga xam ne mbir mi dootul yemat ci rek ci président mais ñi cautionné loolu te xam ni lii ñu ne mm-hmm. jaaduwut loolu daan yooyu war naa tegu ci seen kaw. parce mm. que nit ki mënut a wax ni. Mm-hmm. mbirum troisième mandat kenn du ma ca gis. Mm-hmm. loolu mooy li président wax. walbatiku wëlbatiku bind ko. Mm-hmm. léegi nag ñu dem ba gis ni yëf yaa ngi jeex am ñoo xam ne dañu bëgg a taxaw pour cautionner loolu loolu moom wax dëgg fa yàlla. nekkut loo ah, xamante moo tax léegi moom mu indi xam-xam ci wàllu mu ñu mathématique affaire yi parce que alaaji ñii dañuy mën na ko ñii ni war na koo mën a def mais moom nee ko parce que dañu bëgg mooy sept ans bi bëgg ko jël mu naan ay mathématique xam nga <laughs> la na wax ci wàllu juridique mu naan ay mathématique nañ ko mathématique xam bu ñu demee ba juriste mbirum justice ñu ne ñu ne mbirum loi la mhm. yooyu leen def nañ ko mathématique nañ leen ko mat parce que lii mbir mi. waaw parce que 5 plus boo jëlee x ak y la. borom osé l'avenir. ah x ak y la. <laughs> boo jëlee 7 plus ki 7 moins 2. Hmm. daf lay jox 5. Mhm. président bi mu ko wàññee ci lay soog a tàmbali. Hmm. les 7 yi nga xam ne ci la woon bokkut. Hmm. loolu la bëgg wax. <laughs> loolu la bëgg a wax. kon 7 yooyu day signifier zéro. waaw day tool baaxut alaaji. maanaam baaxut tool bokkut. tool bokkut léegi nag bi 1 5 plus 5 égale 2. muy dix. bu ko defee muy dix mandat. muy ah, man maa xale yi bu leen ko bind. <laughs> non égal yaa ngay mathématique. waay waay waay waay. Eh, xam naa yu nga yu am na problème. mu ne am naa grand frère mathématicien ba noppi ma yox fi cinq plus cinq égal deux. <laughs> Mamadou Makhtar Sarr. allahu akbar yàqu naa.